jaxasoo bambulaa dëggantaan moom la Ibrahima Sall nekkee woon ci Sicap loolee la Cour des comptes fësal niki démb mu di ab rapport définitif boo xam ne rek dafa jëm ci ni ñu yoree woon kër googee di Sicap ñoom ñooñee nag càmbar nañu atum 2014 ba jàpp 2018 taxawaay bi nga xam ne rek noonee la fa Ibrahima taxawee woon nag gis nañu fa ay manquement yu yoo xam ne rek nemmeeku nañu fa ab liggéeyam ca Pima nag moom ma ko jiite woon nag rapport bu Cour des comptes fësal na ni daal atum 2019 jàpp 2021 am na ay manquement yoo xam ne rek jëm na ci doxalin gu mu yore woon nag programme yi nga xam ne rek moom lañu ko dénkoon ab document bu signalé nag dépassement bu ñu fësal jëm ci wàllu salaire ak i frais de mission waaye nañu daan caxat-caxatee nag carburant bi nga xam ne rek moom lañ leen daan jébbal rapport ba bam ca noppee dem na ci société des mines de fer du Sénégal oriental di MIFERSO foofee nag rapport bu cour des comptes la mu ca fësal bokk na ci woto yu bëree bëri ak ay matériels yoo xam ne rek daal dinañ ciy dugal lu toll ci quatre-vingt-dix millions yoo xam ne rek kenn xamut fu mu jaar cour des comptes càmbar moom itam liggéey bi nga xam ne amal na ko ci diggante 2014 jàpp 2018 jamono joojee nag Amadou Camara moo ko doon jiitee la ñu gis ci boobee rapport bokk na ci ay woto yu bëri yoo xam ne rek kenn gisatu leen ca parc automobile ba rawatina ay matériel de transport yoo xam ne rek bu ñu ko saytoo ci suñuy koppar war naa toll ci juróom-ñeen fukki millions yoo xam ne rek ba tey jii kenn xamul fu ñu ko dugal le quotidien yëglekaay feelu ko ne Cour des comptes kay fësalati na lu doy waar loo xam ne rek xewee na ca Sicap ca Miferso ak ca Piment yéenekaay bi ne sale compte la ñu fa nemmeeku nag jëm ci programme yi nga xam ne rek moom moom la ñu dénkoon yi les sociétés ginnaaw bi waa cour des comptes fësalee démb nag li nga xam ne moom moo jëm ci yoreen wu bon wi ñu yoree woon nag li nga xam ne rek moo di société bu Sicap yéenekaay bi ne bëri na ay rëq-rëq yoo xam ne rek mën nañ caa duut baaraam ca piment yéenekaay bi ne ay dépassement de salaire yu doy waar la ñu fa nemmeeku ay frais de mission yoo xam ne rek dañu ko doon jébbal personnel yi nga xam ne rek ñoo nekkoon ci programme nemmeeku ca Puma ginnaaw bi Cour des nga xam ne rek moom la génnee jëm ci bon wi nga xam ne rek moom la ñu yore woon boobee programme montant bi nga ne rek moo jëm ci salaire ñu doon fay personnel bi nag yokku na ba jéggi dayoo ndax bu ñu saytoo lañ ca daan dugal toll na ci 203 millions 373 mille 737 francs waaye bu ñu xoolee ci atum 2020 salaire yi romb na ko di wëy lu jëm ci anam bi ñu daan recruter personnel bi nag rapport bi ma ngay fësal ne nag dara jaarul ci yoon personnel bi nga xam ne rek ñeent fukki agent ak ñaar la woon ci atum 2019 neuf toll na ba ci cinquante huit ci décembre atum deux mille vingt et un loolee nag di ab yokkute bu toll ci trente huit virgule un pour cent waral ba masse bi jugee ci quarante neuf trois cent soixante dix huit mille cent cinquante deux yegg ci soixante millions cent quatre vingt mille six cent cinquante sept francs mu di ab yokkute bu toll ci vingt et un neuf pour cent leneen loo xam ne rek ci la leen fa yëglekaay xëyee niki jii bokk na ci grève bi nga xam ne rek liggéeykat des collectivités territoriales yi di amal bi ne jëwriñ ji ci kaw liggéeykat yooyee nag moom jëwriñ ji ñu dénk wàllu urbanisme ak collectivité territoriale et de ménagement des territoires ma ngay xam ne démb ci ab circulaire bi mu jébbal gouverneur yi ak préfet yi nag moom jëwriñ ji di xam ne ne situation bi jamono ji nag ma ngay bëgg a jéggi dayoo ndax askan wi fi mu toll nii nag ñu ngi am ay jafe-jafe ngir am ay kayit ci état civil yi te loolee nag dara waralu ko lu dul grève bii nga xam ne rek moom la ñuy amal Balla Moussa Fofana nag di bàyyi loo xel liggéeykat yi nga xam ne rek ñoo nekk ci biir collectivité territoriale yi ne naam mën nañoo cas seeni droit amal ay grève waaye service minimum dafa war a am yéenekaay bii di 24 heures ne Balla Moussa Fofana kay nag jamono ji ma ngay sàkk ñu amal service minimum ndax grève bi jamono ji nag ma ngay indil jafe-jafe askan wi addu jëmale ci le quotidien yëglekaay mi nga xam ne nag ma ngay dellu suwaat ci guerre bi am jamono ji nag ci diggante sud des ak ca Sahel ginnaaw bi ñuy xam ne nag lu jëm ci affectation bu professeur Ismaïla Madior Fall ca IFAN nag ginnaaw tuuma yi nga xam ne rek su des gàll na ko ci ginnaaw kii di Ismaïla Madior Fall Sahel jamono ji nag ma ngay solo robu avocat kii di Ismaïla Madior Fall ña ngay xam le nag ne kàddu yooyee nga xam ne waa SUDES yëkkati nañ ko nag dara amu ca sàkku nañu nag ñu daal moytandiku lépp loo xam ne rek mën naa jur fitna ci biir université bi waaye tamit nag bañ a dugal ci biir université bi loolee ñu dippee ay règlement de compte jeexale yëglekaay yi ak lu doy waar li nga xam ne rek libération xëyee na ko tey jii mu xewee ca école Gaston Bachelard bu cité Nimjat directeur ba la ñu tuumaal ne dafa doon yegg ci kaw ab élève moom El ko loxo ginnaaw ba mu doon chantage